neena ci suñu téré bi nga xamne mom lañu talif tuddé ko naylul maram fi madhi sayyidil anam alayhi salatu wassalam wax nañ fa inna saadata fi ihya'i mawlidihi enen fo mbaden ni mo ni nen ci hamidi yeroɓan fa ahihi bittuqa والذكر تغتنم لله درع ناس أزموه إلى أن ارتقوا للعلا والبشر ترتسم أونلادو فهو السخي الذي نواله رغد فهو النبي الذي أحواله كرم وقوله لين شرنوين وفعله حسن من اقتدى بهما لا شك يستقيم شرن إن السعادة جسنا لينا خم نموم لن يوقتخه أدونا نك أك الآخرة في إحياء مولده دانانكو أم في دندلات قد ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم تيرو نينا نك ماغال جي نك دا فاي ام ام فاحيه نغا دوندالي غودي جي بتقى موي تي نينا الحمد لله رب العالمين ñi fi nek ñëpp le tambalé suba ba fi ci jotaay bi ñu ne kenn jëfu fi jëf go xamné fekk sharia nangu du ci waxam du ci jëfam neena suba ba fi ñu tollu tay neena buñu génné ci jaamu yàlla bi rek ñu tàbbi ci menen jaamu yàlla bi kon nag li na wax ni fa ahyihi bi tuqa na nga dundalee guddi gi ci ragal yàlla wa zikri ak tudd yàlla subhaanahu wa taala ak tudd yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na tudd leen fi lu bëri ci mbiru yàlla tudd nañ fi it lu bari ci mbiru yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ku jëf ñaari jëf yii nag nee na kooku nag da ngay am bénéfice ci guddi gi nag moo di nag taxtanimu yàlla nañ ko yàlla may bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na lu ko waral nag moom yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa huwa saxiyu moom mooy ki tabe ki nee na nag lu nëbb ak lu feeñ nee na ki tabe ci ñi nga xam ne moom ak ñoom ñoo bokkoon jamono nee na saxaaba yi lu ñu tabe woon tabe tabe tabe moom yonent yàlla muhammad moo leen gën a tabe wa kaana ajwadu nnaasi moo gënoon a mën a maye ci nit ñépp nee na kon nag ku tabe la ci wàllu baatin ba tey tamit ku tabe la ndax tey mboolem ku ñu mën a tudd ñi koy barkeeloo nee na ci barke yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la amee loolu ci tabe rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax nawaaluhu raxadun nee na mayam ya nee na am am la nee na ngëneel la nee na yëkkatiku la wa huwa nabiyu lladi mooy yonent bi nga xam ne ahwaaluhu mboolem ay mbiram karamu mooy teraanga la moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na nag lillahi darru unaasin nee na kéemtaan ñeel suñu borom bi subhanahu wa taala ay nit ñi nga xam ne azzamuhu ñu màggal yonent yàlla muhammad comme niñ ko màggalee ni ila an irtaqaw lil ula bañu am ci yëkkatiku am ci teraanga am ci martaba gu kawe nee bi ñuy tàmbali lu néew lañu woon bariwuñu wuñu woon waaye nag bu dee màggal nga yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen ñi ko màggal da ngeen di màggaale ci biir màggal gi nga xam ne moom ngeen ko màggal fa yàlla te ngeen màggaale ci àdduna yit Ceerno nee na alhamdulilahi rabbil alamina bu ñu nee gàmm nee na xel yëpp dañuy dellu Tiwaawoon ne li ko waral nee na màggal gi muy màggal guddi sayyiduna Muhammad tey nag loolu nag tasaaroo na te it fuñ ko mun a def ca tàmbali ga mun ngeen nekk ñaari doomu aadama ñett bu demee ba ci kanam ngeen di yokku di yokku rek nee na jotaay wii bi ñu koy tàmbali nee na bis boobu mu ngi tombek Ceerno Bachir mii mu ngi gane si àdduna nee na jamono jooju yal na yàlla yërëm ki ñu wax Souleymani Ba mbokk la xarit la goo xam ne soppi la goo xam ne ku mel ni moom ci soppe yombul moom ak ay magam ak ay rakkam ñu toog ñu daal dekkal guddi gi màggal yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci biir salaatul fatih li ma uxliga nee na muy dox di jëm kanam ceerno nee na moom nag minuwaalam ak seen minuwaal bokkul ceerno nee na daal li ma leen di dénk mooy luñ ci mun a def na ànd ak li ñuy wax ixlaas sellal nee na quantité baax na waaye nag bu nekkee qualité nee na bu quantité nekkul qualité nga am qualité donte ne nekkul quantité fa yàlla moo ëpp tamit moo ko moo ko gënal moom ceerno est-ce nee na xamul nag ndax li mu bëggoon noonu la waaye daal mu ngi ñaan yàlla suñuy lépp yàlla na fekk qualité la